برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ci seen taxawaay bu rafet ak jàppale fond bu Medina Baye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

te musoo mooy musoom dee yéen ñëpp da ngeen wax ci yàlla lañ jógee te ci yàlla lañ dellu am nañ nag suñ soppee suñu xarit suñ doomu ndey suñ jarbaat suñu rakk suñu sët suñu àndoo ci yàlla mu jame yàlla bu sell jame yàlla buñ xam ku bëri xam-xam borom xol bu set bi borom xol bu leer bi borom xol bu naat bi borom xol xom xol bu am xikma bi borom xol bu gëm yàlla bi borom xol bu gëm am ngëm yàlla subhanahu wa cent pour cent borom sitku borom ixlaas borom tumaay na ndeysaan mu jàmm yàlla bu sell bu baax boo xam ne man gag naa ci la laa war a war a mën a wax ci moom ndax dafa na xale bu am avenir xale bu am avenir cent pour cent ci côté yëpp nag

waaye foo mën a dee soo moom ca nekk fexee la nga nekk jub rek qul inna huda la hulu njub mu ngi ci yàlla subhanahu képp ku nekk ci yàlla ba dee fekk la fa ah da nga xam ne yàlla mu mën a fay waaye ku nekk ku nekk safaaru dee ba yàlla fekk la fa ah da yàlla mën a fay yàlla mu fay yàlla mu fayakoon la yàlla mooy tawaab mooy rahim kon ñu ngi sant yàlla baax di wax encore ne suñu mbokk boobu nga xam ne ndeysaan ndeysaan ndeysaan bant bu sel bi Abdourahman jaamu yërmande bi Abdourahman jaamu yërmande bi Abdu mooy jaam Rahman mooy yërmande te yàlla mooy Abdu bi te yàlla moy Rahman bi ndax Abdu bi jaamab yàlla la Rahman tamit jaamu yàlla la te boo ne Rahman mooy yàlla ba tey Abdu nekk jaamam rek doo ci wax day dem boo ne Abdu bi jaamab yàlla la Rahman jaam yàlla day wér. bona abdu bi melo yalla rahman bi melaw Allah, day wér bona rahman ge moy yalla habbi moy jama ba tay day wér waaye dal abdu ay ah, ñu ngi ton suñu sax bu ñëw tudd abdurahman sekk dee na encore ciak texe ndax la taw mu de ciak texe moy lan mo mu ngoon ci toolu xare xare moy lan yalla bind nako mu nek nit yalla mel ko xel mu jang fam war ba war jang amna xam-xam dugg na arme yàlla ba yàlla ko mu nekk ci ci benn koor bu ñuy wax corps gendarmerie macha allah am na motaaram di liggéey di liggéey ba ngoon muy wàcc di ñibbi këram macha la ko dal la ko dal dab ko ca moo tax dee fan la kenn xamu day bette rek bii dee ñee bett na ko mhm. waaye nag bettu ko woon parce que moom par rapport dee balaa dee di ñëw insa waxoon na ne mhm. muutu qabla an tamuutu dee leen bala ngeen di dee nekk kon dee bala ngay dee amoon ñu ne ko naka la bàyyi des radlaaw ñëw fii nañu dee bala nga dee mooy kàll ma xamal ko ñu ñëw jàpp kurus bàyyi ñu diñu sikkarloo bañ def fanaaw ci la ba jax takk ci yàlla nga dee ci yàlla ba amatuloo nga def ba xaw nag kon yow dee nga njëkk jooy dee te ba nga dee pare yow sàng nañ la sàng nañ la suul nañ la julli nañ lépp lépp dafa nañ la ko dee gi mooy fannaaw bi sangu bi nga sangu bi la sangu noonu ci maalo rëy bi maawul xayaat maawul kawsara bahru muhit sang bi na la sang dafa na nisab bi julee gi lay julee xaqay ko ci nañ ci yow suul gi ñu suul nag dellu nga xadur baqaay ñu suul la kon abdurahman am na mérite abdurahman nit àjjana piir ngi noonu ci ci lay yoo xam ne yomb na lool même bu du zahir même bu baatin zahir rek laa wax yuntal sax wax na ne man qaala laa ilaha illallah daxal janna mhm. képp ko wax laa ilaha illallah da nga dugg ajana abdurahman duna yëpp laa ilaha illallah doon sikkat ay guddeem ak ay bëccëgam mhm. ay subaam ngoon yëpp mu ngi ci laa ilaha illallah mhm. gudde bëccëg ci xadar jumaa ya ci wasifa ya ci daayira ya ci gàmmoo barki dem ba dong la jógee Medina Baye dem na gàmmoo dem na gàmmoo alhamdulilahi rabbil alamin Medina Baye la mujj dem te gàmmaat mu ngi fa jógee mardi ci ci suba bi ñu xëyee la fa jógee ñib si mhm. mercredi mu gaañu mhm. kon xam nga ni kii am am am na gën maa ne Cheikh Ibrahim ah, voilà te guddoon kenn ku dul Cheikh Ibrahim ci bàyyi la jeewoon ci bàyyi la desoon mhm. waaye nag sanga jaam mën a àndoom ci yàlla di ko ëndir di ci bi yàlla bi waaye nag ànd ak loolu yëpp nag taalibi Cheikh Ibrahim la taalibaay rek la woon nag kon Abdourahman dëgg-dëgg ñu koy jàll ay mbokkam ñu ko jàll jamaa bi yëpp fu jaam mën a nekk ci àddina bi tey jama fi yan sadiqin xam naa xat alosu ilallah qasdan dañoo la namatu wala nahya ci diaspora bi yëpp nag fi ma nekk ñu nuyu doon ndokkal ci moom di ko jàll ñëpp nag di waa ni ko baax dem na ni ko baax dem waaye dem nga bett na de ah gars yi dee dee bett nekke ne nañ ko par par ñun ñëpp dem na te déegu bett bett lool xëy nga sa kër bàyyi sa soxna bàyyi sa njaboot bay say parents bàyyi say dëkkandoo bàyyi say sopp ak say xarit dem liggéey yi ñëw ñib gi ñu ne diw kat faatu na kon de man naa bett xam ngeen lii kenn parpaaru ko du jabaram du doomam du ay param du kenn koo pare paroon waaye na yàlla ko moomoon yàlla moom àllam jël na ko mm-hmm. gis nga yàlla subhaanahu wa taala xikmam bi nañ ko sental baax képp kenn suñu yàlla ba mu lay bind sa baay yëgut sa yaay yëgut yow yëguloo mm-hmm. ma bàyyi moo ne maa doom ji ta boo di sos ci bir yaay baye xamu ci dara hump na ko yaay mi ëmb tamit bi yalla di bind ay cër ñom tank loxo nopp sikkiñ bakkan beut gemi yu yep yaay boobu dom ëmb dom yegu ci dara dom ji dem yegu ci dara yalla fexé na fexé fexé ba baye yegut yaay yëgut dom yegut wax deug yalla li kim tan amna ci ku yek yalla mo yek yalla mo yek mo meuna mo moo tax ma ne afara aytu ma a antum taxlaquunahu am nahnu xaaliquun mm-hmm. kon yàlla moom kon moom alal ji nekke mm-hmm. kon nekk baay moomul alal ji yaay moomul alal ji doom moomul alal ji ki moom alal ji mooy ki yaay bind doom bind baay ki bind baay bind yaay bind doom kii moom alal ji mooy yàlla subhanahu wa taala comme yàlla moom alal ji nag xalal nag borom saa yi ko yàlla moo ko moom ënd ko ci àddina bi mm-hmm. yi ko neexee mu jël ko ak nu mu ko neexee nu mu ko neexee ni mu ko neexee la ko jëlee tey bu ko jël kenn do xam pourquoi. Hmm. parce que mom alalam la. Hmm. kon yalla jël alalam. motax ma dama tout ki dem ah dem na wajakul fayda de. ah dem na wajakul fayda de. mom hmm. ku ci reey nit do kek de kep ku ci content ci nit bilaay do kek parce que de nga ñew ci kaw. te xama yow nak ngay yow. motax firi. ku nek nak la ragal bu sa borom subhanahu wa taala sa mana bax wante dee ku ci rëy nit ma ne doo kekku mhm. abdourahman dee na soppeem yi kontaan nañu noonam yi ñu ngay ñoom ñoom te kontaan nañu mhm. wante mhm. wante wante yow mi kontaan ci dee gi de para para de de mu ngi ñëw moo da dee ku ci ku ci rëy nit doo kekku abdourahman nag dem na dellu na borom subhanahu wa taala fu mu jóge woon ci yàlla fu mu ñëw ci yàlla fu dellu ci yàlla moom lépp yàlla xoon loolu la Baye radiyallaahu jàngale mm-hmm. kon ñu ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. dee dafa mel ni lu am la fekk majaas la mm-hmm. dafa mel ni lu am la fekk majaas la la Baye doon jàngale ca ca ca xikma ba sëy un mbir moo gis moo taxu fii àdd bi sëy un mawjudun fi anin waxid lu am la te fekk mu ngi ñàkk mu ngi am nii bàyyi na kon bu dee ñëwee ci yow ñu ñun ruuge dem na yaram bi tëdd na ñu gas pax suul bàyyi ne déedéet mhm. furuda turaabu mhm. bi turaabi bi haynihi mhm. wa maa un ilaa maa in lii si aslu fa la yoqa ila allah laa shay xeeru yaara moo fi ma nekk nekk jëkk mu ne ndox day dal ci ndox suuf dal ci suuf rek ndox nag moo doon deret bi daw ci yaram bi deret boobu doon doon ci yaram yow yëpp tey soo dee deret bi day mel ni lu gën yaram ba seey ànd ruux gi gën nekk ngelaw naka leneen ci benn tëjëleel lay lay nekkaat mm-hmm. yaram bi tamit ñu gas pax suul mooy tamit mata bàyyi di wax leer na farudda mm-hmm. turaabu bi turaabi bexaynihi mm-hmm. wa maa un ila maa in li sa gana asluhu fala yaqa illa laa laa jee xeeruhu radiallahu anhu kon ñu ngi sant yàlla baax di gërëm njaboot gi taalibe yi ñu leen gërëm tawaay bi rafet na trop taalibe yëpp maa leen gis ñu ngi taxaw ñu ngi armé depuis xale bi gaañu ba léegi kenn kenn kenn amutul jot ñëpp ñu nga ca moom ndeysaan di ko di ko teral ñi sangaka sangaka julleeka suulaka ñu ngay sëkk ñu ko def lu ne ngi saan parce que ngir la la suñ soppe loon kon suñ soppe dem na waaye nag dem na waaye dem na waaye dem na waaye demut inam yoroo bahit wa daroo xarib dafa mel ni lu sori fekk mu ngi jege lool ci ñi ci ñi yàlla xamal Abdourahmane Seck mu lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel ci fi nga nekk wóor nañu ne ñun fi nga dugg tey moo gën fi nga jóge wallaay fi nga dugg tey nii moo gën a neex foofu fi nga jógee tey ndax fi nga jógee kaso la woon kaso la woon kaso adduna si mumin wajantu kaafi adduna bi kaso la ci ab julit tey ne tinkili ci kaso gi nga dem ci otel ba kon kay fi nga nekk moo gën fi nga jóge ku ne xam ne kay kaso kay néexut te adduna kaso la ci ab julit bi kon Abdourahman ñu ngi ndokkeel fi nga nekk yalla yalla yàlla taral la fi nga nekk taranga bu rafet hmm. yalla yalla boy la ak yonent Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nek sa git fi nga nek mu taral la mu nekk sa hmm. hmm. njati yal yalla yalla boy la Cheikh amon tidiane dara laa mu nek sa git nek sa taranga mu nek mu nek sa njaatige fi nga nek yalla yalla boy la mawla Cheikh al Islam al ibrahim Ibrahima fi nga nek ñetti ñi kep ku nek sa njati ge ak ma njati ge te man woor na mané njati ge mooy yonent yàlla Muhammad mooy Cheikh tidiane mooy Cheikh Ibrahim bi mi dund li ci li la dundon ci li la dekk dee woon te tii lii lay dekk wat yàlla nag xanaa nag yàlla nag mu wax di yàlla du jël lu baax na di ko fay leen contraire mukk yàlla lu baax lu baax la koy fayee te yun yun tam sam ku baax la cheikh yan ku baax la bàyyi ko baax la déedéet yón bi ku gën la cheikh ku gën la bàyyi ku gën la ñi gën ñii nag ci la xale bi baax bii jeexoon ci la xale baax bi encore desoon kon xale mu ngi àjjana ak mu ngi nekk ko àjjana yéen ñeneen ne koy xalaat waaye du ñun alhamdulilah sant dañ ci yàlla baax ñu ngi koy jàll nag àddina bi yépp ñu ngi koy jàll mbooleem mbooleem ku nekk ci lislaam gëm ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa rasulullah ñu ngi ko jàll jàmm yàlla ba sell bi di ko jaal waa tariqa tijaan yépp di ko jaal fii du Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass di ko jaal na xalifa bi xalifatu Hamma Cheikh Mahi Niass Ibrahim ñu ngi la koy jaal sa sa taaliba ngoog ku baax la

parce que xam na la ñoo xamal ci moom lan la mhm. xam naa ne lépp loo yàlla bind mu koy jooy parce que lépp loo yàlla bind rek xamoon na ko nu mu ci boppam comme mhm. nag yàlla wax ci alquran wa in min shay'in illa yusabbihu bi hamdihi mhm. walakin laa tafqahuuna tasbiihahum moom xamoon sax bëgg la lool ñu ngi ndokkeel ñëpp di saari ñëpp maseer caam gis nañ liggéey bi rafet na trop wax dëgg yàlla bàyyi benn kebe liggéey bi rafet na eh, Thiam porte-parole mm. raxas kaas mm. ñoom tëx tasara mm. ñoom tuubaay ñoom Abdou Thiam ñëpp taalib yëpp rek gis naa leen foofu ñu taxaw maa ngi toog fii ci Maroc waaye maa ngi lépp rafet na même soo fa nekkoon mun ma passé lii te lii mooy ut kuutal nag lii moo rafet lii mooy àndal bàyyi mën a ànd luy firi rek mooy ànd mm-hmm. ànd gi rafet na taaru na set na sel na amali jaba ñu ngi nuyu ñëpp leen ndokkeel leen jaaramal diiney famille nag di ko jàll papaam ay ñoom yaayam ay ñoom soxnaam ak njaboot ga ak dëkkandoom ay soppi ak ñu ngi ko jàll ñëpp ci zaahir baati yëpp yal na yàlla xaare ko àjjana yal na yërëm yërëm yàlla subhanahu wa taala yàlla àtte ko ci yërmandam yàlla yéeg ko ci maqaam firdaws ci zaahir baatin maa ngi nuyu ñëpp di leen ziara di leen ndokkeel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu